Un Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yep, yëpp ñu Sénégal si anam yu sel celle naturel Puis bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sa pinak. oh. oh dina yok sen katan bolé vitan vitamine rek la ñi bëgg so naturel vito so excellent pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak. si emballage civilisé te jus vito da am choix te ñu defere ko fi Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum yéen ñi safoo Sénégal 5 te di ko seetaan dal leen ak jàmm ci seen site bu mag bi leen di jox des informations à temps réel tey nekk jeudi 18 août 2022 ñu dikkati fas yéene na jox li xam ne moo di ay xibaar xibaar bi nag du dara lu dul mbirum góor jigéen mbirum góor jigéen ginnaaw semaine bee ñu génn yëpp ku nekk xam ne diggante taasukat yeeg bongomaan yi yëngu woon na lool. waaye lii nag beneen xew-xew la beneen anam fan la amee fii ci ndakaaru fan ci ndakaaru place u Bessa la guddi quinze août lañ bett juróom benn xale yu góor ñu nekk fa di sëy bañ leen bettee ñuy sëy nag ku nekk yaa nga des si nit ñiy soutien waaye ña ca des def taatu neen góor woo góor ku nekk yéeg si sa moroom di sëy waaye li jaaxal askan wi lu bettaat Sénégal mooy dañ faa fekk benn xale boo xam ne ku ñëpp xam la ku ñëpp ràññee la ci musique fan la génnee seen petit gàlle seen petit gàlle ñu bëri doon wax day yàq xale ñii na diideet waaye xale bañ fa fekk moom it mu nekk ku ñëpp ràññee ci biir seen petit gàlle mu nekk xale boo xam ne macha allah am talent moom it dañ koo fekk ca biir góor jigéen ya muy sëy ak ay moroomi góoram wax ji ñaaw na sénégalais yi nag li ñu mënta comprendre ana plaisir bi nga mën a am ci sa moroomu góor ana góor ak góor ku nekk juutu ngay def naka su dul noonu du samay wax waxi sénégalais yi la góor jigéen a ngi bëgg a ëpp loxo góor jigéen mi ngi bëgg a yàq réew mi waaye góor jigéen mi ngi bëgg a yàq suñu Sénégal ndaxte lan moo waral yàq bi ndax nee nañ góor goo gis ma ngay lèvre rose góor goo gis ma ngay riij aw taatam góor goo gis ma ngay sinap di dox doxinu jigéen looloo waral góor jigéen ñi bari suñu réew ak lan moo tamit góor jigéen ñi lan moo leen may fit nee nañ góor jigéen ñi am na lu leen ngemb ndax coow du coow li bari ci góor jigéen góor jigéen da ngay gis ñu génn di leen défendre Sénégal yàqu na Sénégal xam ne dëkku teraanga la dëkku lislaam la Sénégal léegi loo wax rek ñu ne la diw góor jigéen la wala loo wax rek ñu ne la kee di dox góor jigéen la te ñoom léegi amatuñu rusukaay dañ koo fësal a fës ba mu fës kenn mënul ci góor jigéen ñi dara Sénégal nag il faut que seen mag ñi wax si mbirum góor jigéen ëpp nay loxo ba jaaxal askanu Sénégal ndax yaay ju ne yaay nga waaye yaay ju ne tiit nga ndax xëyee gisoo sa doom sax boo xëyee yenn guddi jot gisoo gisoo sa doom sax sab xel day ñaaw dañuy ñëw ci diggante ñaari tiktokers kii di Faa Inara ak Faa Inara ak Faa Aydara gisoon na jamono yee ñu génne kii di Faa Aydara doon doon doon feete 2 millions d'abonnés waaye actuellement nag élève ba raw na prof ba luy loolu maanaam Faa Inara am na 2 millions 400 damone daa dinay raw kii xam ne mooy Faa Aydara cooli bëri woon si ñaari tiktokers yooyu yëpp waaye yàlla mi xam ne mooy xool li ko neex mu def ko si jaam daa dinay jox raw gàdd kii du di Faynara Faynara Sénégal Faa Aydara Sénégal cooli bëri barki démboo Njaay gis nañ ne kii di Faynara ak Faa Aydara daa dinay juboo jàmm ñëwaat na si diggante boobu kon saytaana yi dimbali leen ñu ñaari tiktokers yooyu ñoo ngi ci jàmm jërë ngeen jëf lii lañ leen indiloon ci ay information about the little love from the man.